ak sëñ Mahamadan mi ak sëñ Bas ak sëñ Abo ak mbooleem njabootu sëñ Fallu Asijee gépp ak mbooleem njabootu borom daanu ci gépp kàddu gi daanaka jëru ko woon ndax foog naa lii sëñ Mahamadan wax kenn amuloo ci teg di sant rek ci seer yi ma seer rek sama diggante ak borom Daaru Muxti te loolu mooy li may dund li ma ci teg rek moo di ne defuma ko royukaay sax ndax ak mbokk waaye damaa gis ne foo ko natt mat sëkk te li wax lii mooy li ma jàpp sëñ Tuubaa dafa am la ko wutale ak ñu ko jiitu woon ñëpp ak ñu ñëw ginnaawam neewaana nga gis doomu aadama xalaatub xalaat xalaat ba ñu mën koo jëfe li bëgg a wax ci ñenn ñi mën koo xam mooy boole théorie ak pratique lu néew la xalaatkat dañuy xalaat noonu rek di dem sëñ bi nag ngir wane ne lim bëgg mën naa nekk daa jël koo xamante ne bii ni mu bëgg am mu mel ni da koo melal noonu ba noppi ndene nag ma nga ne roy leen ko muy maam Cerno borom Daaru Muxti loolu moo tax man ma def ko sama royukaay te wet goo ko natt rek muy diine ji muy ngor gi muy njàmbar gi muy maanu gi foo ko natt rek day mat sëkk te boo koy natt ki digg mooy sëñ Tuubaa nga koy natt soxna may def maa natt ne ma bi mu ñëwee Daaru Muxti nee am maam Cerno da ko ba mu dikk mu ne ko fii day may mën a ñàkk moom ndax li fi nekk lépp sa waajur a ko fi def loolu foog naa ne ngor fa la mën a yem bu ne maandu gi nee nañu bi sëñ bi dellusee da koo da koo delloo ba delloo ko sax attaay joo xam ne tegoon nañ ko mu ne ca baraada ba kon maandu foofu la mën a yem mu defal sëñ bi loo xamante ne bii kenn defalu ko muy njabootam gii ni mu leen yare ak muy sëriñ Fallilou sëñ moon Moustapha ñun wa Daara Xuddoos nak ñu am ci benen cër lo suñu xaadim mi xam nako ko na am nak lo loo mom mi moo ko nettali xañ na sax du waxi bass waye kon ñun tam buñ amé dara ci ngor am na loo war nañ ko doxal suñu digënté ak borom Daaru Muxti kon man lolé mom lay xeeñtu te itam na rëccu ma ci dara ma ngi sant yalla bu baaxa baax kon sëñ ñi ngi leen di ziar di ñu yóbbante ak cant ci sëriñ sëñ Bas ma ngi lay wax légui na la fani dina fa ñew ziar si ko ngir ay yitte suñu xaadim mi ngi lay ziar di ziar mbolam jabatuk Cheikh Maodo Balla gépp di tëje rek ci sama diggante ak njabootu sëñ Fallou gi ndax sëñ Fallou dafa nekkoon ku baax ma ko daan fekk fii ci màggal gii yàgg na mu dëkkoon ci kër ga dëkk ci soxna si nekkoon xaritam bis bu yàlla sàkk bu soxna si nekkee Touba sëñ Fallou dana xëy si ci kër ga sëñ Bas mii noonu lañ yàgg man ak moom sëñ Abo wax nañ ko fi waxati ko fi kon jarul ma ci dellu si waat moom itam muy nit ku baax ku gore ku jàmbaare ci liggéey sëñ Touba bi nga xam ne man dénk nañ ma ko man moo tax tey jii Mauritanie laa jóge damaa jël avion wàcc ndakaaru daal di jabar si fii te waru moo ñëw te waaye màggal gi mënu ma ko tardé bi mu ñëwee ba Tuubaa ma jot ko mu ne ma jéggal naa la ma ne ko déedéet màggal gi ma indi kon faaw ma ñëw ba agsi léegi ci gee la agsi di leen ñaanal yàlla rek mu yàgg lool ci seen loxo di ñaan yàlla itam yàgg leen fee fekk te itam lépp loo xamante ne bi yéen a ko ci séntu rek seen maam defal nañ loo xam ne lu kaw seen jort lay doon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuhu